nuyu len ku nekk ci turam ak santam di leen jaajëfal bu baax a ba ah, yeen ñi nga xamne nak yeen ñoy sétane sa bu nekk dama koy wax rek ah, jeenax day bari ko mus day mëna wax ñew ah, sa su ne dama koy wax ci gambin talent TV ñun nak dañuy dalal gani. gan dang koy gënalé gan dang koy mën te man Fatou Samba dama mën gan xamna naa ne ay dëkk be nak su sétane jamono ji dina ne moma a li nga xamne nak moy gënalé way stress bu ba rek jaajëfal leen ñi nga xamne yeen ñu faral di topa jamono ji nak jamono semestre yi la dañ leen naa dalal dama koy wax rek Europe bi sedd na lool Europe bi métti na Europe bi lépp loo xam ne rek mu fa ah, nekk na loo xam ne ah, ñoom suñ ñëwee Gambia lañ nar a enjoy waaye tam du ma ne Europe bi rek ah, soo demee fi nga xam ne nag mooy Amérique ñoom it ay jàmbaar leen ay moodu moodu yaa ngi fa ay faatu faatu waaye nag tey Baboucarr laa indi Baboucarr yi tamit ñu ngi bay seen wareef bu baax a baax a baax di leen ne nag euh, li nga xam ne mooy Semester Avenue euh, ñi nga xam ne nag ñooy APS Money Transfer ñoom ñoo bi saay boo leen koo rek ngeen xam ne ñoo ñu jàppale euh, moo tax it rek ñu mun leen a indil programme bi APS nag ñi nga xam ne yéen ay semester yi ñëw biir Gambie seen xaalis jeex bu leen kenn xamalal lu mu leen warut a xamal jokkool ak APS sa bank card bi nga xam ne moom ngay use Europe mété it Amérique mété fi nga mun a jugee rek APS international dina la mun a jox xaalis si Gambia te it saay boo demee si suñu euh, branch APS dina musa wax ne ne euh, li nga xam ne nag mooy suñ euh, service bi maanaam dafa am network bi mooy am problème ba tey lële dama koy wax saa su rek ñun ngeen war a trust ñooy yéen yéen yi nay ñun bu boobaa nag yéen ñi nga xam ne yéen a may seetaan dama koy wax rek man damay dalal fii ki nga xam ne kenn dalalut ko ki nga xam ne nit dalal na ko sax te ko man dama koy wax gandam koo te man damay gën a mi nga xam ne nag moo toj fi nga xam ne mooy Atlanta euh, mooy suma gan waa Atlanta ñoom dañ dee wax bañ ñoo wax Atlanta di xajaan ah, ñu xam ne maa leen gën a nekk semestre ah, bu boobaa nag ah, di leen wax ne mooy suma gan mu nekk koo xam ne wàllum sport ñu baree bari xam neen ko si mu nekk koo xam ne def na fi lu bari si biir Gambia bi waaye amul foofu noonu nag moom dafay def te du boole wax Baboucarr ku ko xam-xam na ko si yëfi philanthropy activities yu bari mu ngi see nekk te it bu turam feeñ waaye man dama koy war rek damay research te it damay seet ki nga xam ne moom laa fi indi su ko defee ma xam ko yéen ma jaarale ko si yéen yéen ngeen xam ko mu nekk loo xam ne lu ama am solo la ah, waaye Baboucarr emut foofu noonu ah, tey soo déggee July 4 ah, biir Atlanta nekk na si ñi nga xam ne nag ñoo tax ñu ne tey July 4 ba tey yeneen célébration yi nga xam ne ñu ngi am foofu noonu mun see bàyyi waree fam bu baax a baax a baax tey it nag moom community work rek a ko soxal ba nga xam ne su ñëwee holiday sax du em rek si enjoy holiday am foo ko gis rek mu ngi si gox gox yi di li nga xam ne moo xew biir Gambia Ah, waaye it nag ab ah, ndaanaan bu mag la foofu laay am ah, ñu ne nit ki am na nooy waxee si moom rek da nga koo téye ba nga xam ne du mun a wax te dama bëgg nag mu yaatal waxtaan bi xale yi dégloo si mag ñi nag fàttaliku si démba yéen ñi nga xam ne yéen ay mag ñi xamoon baabukat lool xam naa ne nag am na yu bari yoo leen fàtte waaye baabukat tey dina leen ko indil si biir kër bi salaamaaleykum encore